ahlan bikum jël xalalu réew mi di ko pasar pasaree jël ay milliards di ko dugal ci ay woto ngir ay ministre ak ay njiiti société ci lii la réewum Sénégal nekk ba tax njiiti réew mi Macky Sall ne caaxaan faaxe lu ëpp tuuru yéen samay ministre laay waxal ak directeur société yi bu leen ma faxantoo xalalu askan wi ngeen di jël di ko yàq di jënd ay oto ci turu nguur gi bés ni ki tey na dakk ba tax libération na njiiti réew Macky Sall fa mer dóor loxom ca taabul ba conseil des Soleil yéen a ne moo tax jël na dogal na li ko tàmbalee alxames bi kenn dootul fi jëndati oto ci turu nguur gi te oto yi nga xam ne sax jot nañ koo jënd administration bi maanaam oto yi am AD yëpp danañ leen compte ci Sénégal xam ñaata lañ ñañ ko jox ak nañ ko yoree teg ci ay règlement nag duut ko jóg rek ñu jox la AD ngay taxawaalu nekk sa soxla bopp l'observateur ne Macky kay moo yëy dakkal li ni mel ndax fa gis ak tooxi doon a luubal alal ju bari ci mbiru oto yi ayaw seetal juróomi milliard ci suñu xaalis ci njëndam oto xam réew mi askan waa ngi sonn ñoom ñuy galayaabe ci suñ xaalis bi ba tax yéen kaay bi na la amoon réewum Rwanda moom la Macky bëgg a def Sénégal maanaam ministre bu nekk wala njiital société bu ne yaay jëndal sa oto bopp wala ñu jox la oto di la ko dagg ci sa la laas yéen kaay ne Macky nappaaje na dëgg na frein oto ya taxaw na yàq xaalis yi jënd oto dakkal na ko le quotidien yéen kaay na ko Macky kay fa nangu caabi ya dem toog jàpp njàmburam xaar leen ma leen rek yenn ci yàq xaalis ci njëndam oto yow seetal ARTP ñaari oto lañ jënd xam nga luñ ko jëndee cent cinquante sept million ñu ne déetawaay jëw nañ ju ñu dénk wàllu yoon 460 millions la génnee ngir jënd oto ministère microfinance 198 millions ministère de l' agriculture jëw nañ ju ñu dénk wàllu mbay mi 118 millions secrétariat gouvernement 65 millions yéen a kaay bi na lii kay moo tax Macky mer ba pare dakkal ko si du quotidien na ko Macky am na leneen loo war a dakkal nekk président ba pare jiite parti société civile bi bàyyee guñ la de nee nañ xànduñ témoin yéen a kaay na ko hee defal ndànk de li ni mel neexut fee jëlee de nekk président jiite parti comme ay seex lañu ku fi toog it noonu ngay def la mu defoon ci ay jamono moom maître Ousmane Ngom arrêté ba tere dox doxum ñaxtu centre ville bu Ndakaaru man koy leeral tey ca Sud Quotidien ayaw ah, seetal nee na dëgg la doxum ñaxtu lu war la sañ-sañ la waaye nguur gi tamit fa war a aar dëkk bi ba du yëngatu te xolu Ndakaaru xamal fa doxu ñaxtu mën naa yee fitna nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne réewum Allemagne wax na fukki dëggam ak juróom-ñeent réewum Sénégal njiit réew Macky Sall ak ñim àndal Allemagne nee na leen ak ak yelleefu doomu aadama fexe leen ba ngeen sàmm ko ci réew mi te bu ngeen xeex wàllu terrorisme def leen li ni mel waaye réew moo xam ne amul droit loolu du jàmm nay leer la na dàng ni jant tusubaar cig leeraay mooy na Ablaye Wade dalal na ambassadeur bu réewum Amérique fii Sénégal ca biir këram audience secret la nag Dakar Times moo ñu ko xamal la nekk ca gannaaw audience ba lan lañ waxtaanee loolu nag moo leer agut laneen lu leer agut mooy tolluwaayu mari taw ñaan ci wàllu politique gaa ñi fañ koo ber ba tax l'observateur ne mbaadu nguur gi fa ko bëgg a sànk ñu war a sànk dëgg nag mooy ñiy jaay garab yu bon ci réew mi nit ñi di ko fajoo mu jural leen loraange ba tax waa grand place trafiquants yu mag yi ngonk yi gars yi xam nañ te teg leen loxo yàq ko docteur Assane Diop jiite syndicat pharmacien yi ci Sénégal nee na wax dëgg dafa am ay kër docteur hôpital yu nekk fii Sénégal ñoom ci seen bopp ñooy bindal ay ordonnance wax askan wi dem leen ngeen jënd ji garab yoo xam ne baaxut loolu de du jàmm jàmmi réewum Sénégal nag mooy moytandiku jàngoro ju bon ja am Chine bañ a dugg ci réew mi ba tax critique yéen a kaay nee na Macky wax na gaay mi jël leen matuwaay yi frontières yi na ngeen ci taxaw terewul yéen a kaay bi nee na am na ay chinois yu jugee seen réew dikk fii Sénégal ñoom chinois yooyu nag jur na a njàqare ci askan wañ dëkk ak ndax ragal ñu àndi jàngoro ji l'évidence yéen a kaay na coronavirus kay fi mu toll nii tax na sénégalais yu bëri ngi jàq suñ gisee sax ku daanu ci mbedd mi faatu kenn du ko ñemee laal ndax fa ñuy foog ne faame jàngoro ji buñ gisee chinois tamit ña koy bàyyi xel ak moytu tàggat yaram Valence fañ koo mbuqi Tottenham fañ koo fekki mbuqi ko Leipzig moo fa jaar Ligue des champions démb tey nag Europa League ñooy jongante stade yéen a kaay na jongante yu neex li narta neex yi mooy combat Modou Lo Ama Baldé nar naa a ñaari promoteur yu bëgg a suufu Luc Nicolaï nangu ko ci moom tëgg combat bi source a yéen a kaay di ñu xamal na ca diiwaanu Touba xam na fa ñeenti xale yu jigéen fañ leen a jàpp tëj leen ci kër gu ñuy tabax te xeggul xam loo leen vox populi na ko ma yokkal la ci ca kasoog rëbës ga benn waaye bu ñu wax akim fa xaru takk boppam lange faatu ñàkk bakkanam ca biir douche ya allah ñu ne ku dal la woon xamul benn problème liñ seetlu daal mooy baayam génn na àdduna maamam bu jigéen génn àdduna ci lu matu juróom benn weer su fekkee loolu ko naqari nag tax mu xaru perte na dis perte la baaxut ba leen ko ngir yàlla laneen lu baaxut ba yegg ci lool moom la benn waay def jabaru nijaayam te mooy yéen a ñu ko xamal a yaw seetal waa ji daal fa fexe ba am ay foto ak vidéo yoo xam ne jabaru nijaayam ja fa caa def mu neen léegi nag saa bu bëggee ànd ak moom ñëw na ko kaay wala ma wane sa photo yi ci internet bi jabaru nijaay ja na ko acca mu dëkk di ko ko def mujj naa weeru nag ndax teg nañ ko loxo ki jàppoon doomam dóor bam dee ndax juróomi dërëm la sala yéen a kaay nee nañu tëj nañ ko kaso fukki at yu muy am na tamit benn waay bu lee benn nit këram waaye crédit cinq cent francs moo leen boole mu dóor waa bam dee allah waa ma ne ñaawteef yi bari na xaru rey sa doom rey sa locataire ànd ak sa jabaru nijaay maa foog na daal axiru zaman lañu ne